mbokki Sénégal mbokki réew mi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 parce que du mbër yëpp la yàlla may chance ñuy am tout le temps ay combat di nga gis ku toog un an doo am combat donc su boobaa it doo am problème di nga mën a continuer say entraînement mais am métier boo xamante ni di nga ci mën a daan sa doole en fet di ci dundal sa njaboot. li euh, gàtt na. waaw euh, gàtt na gàttul ndax tamit formation euh, day dépendre rek ci yow. li tubaab naan prérequis maanaam prédisposition yi nga am ci formation bi loolu da ciy dépendre beneen bi tamit nekkul ni métier yëpp yëpp yëpp yëpp dafay laaj nga def ci ay années pour maîtriser ko donc formation am na métier yoo mën nga jàngal nit une semaine mu pare di ci liggéey mën nga jàngal nit deux semaines mu pare di ci liggéey maintenant lu jëm ci wàllu garde rapprochée je pense que base bi yëpp bëri am nañ ko déjà. parce que ay sportif nañ sport de combat dañuy def te loolu dafa nekk base essentielle yi nga xamante ni moom moo constitué garde rapproché je pense que bi ngeen di gis ni ñuy formation bi rek nga xam ne lii day laaj koo xamante ni sportif la day laaj koo xamante ni ci technique de combat yi am na lu mu ci am. voilà maintenant nag euh, loolu nag dafa am nuñ ko war a mooñee ba nga xamante ni mooy dëppook métier garde rapproché parce que ñenn ñi ci ñoom ñu ngi koy def parce que tey gis nañ. yenn stars yi musiciens yi suñuy génn dañu ànd ak ay mbaru làmb suñuy génn ci public yenn politiciens yi suñuy génn ci public dañuy ànd ak mbëru làmb surtout ci élection présidentielle yi mais amuñu benn formation préparé wuñu leen ci loolu donc xëy na mën nga am doole mën nga mën a xeex mais tey ci circonstances yooyu garde rapproché doo xam nan ak nan nga war a doxalee donc formation bi ci loolu lay gën a tënku mais base bi ñoom déjà am na lu ñu ci am donc 15 jours yi euh, mënuñu wax ni que gàtt na trop ci ci ci ci formation bi. Macky am na benn bu bët lu jëm ci wàllu euh, këyit ndaw yi waxoon na këyit bëgg na pour ñu leen d'emploi tey ngeen di def nii euh, xalaat ngeen ne. bu ñu yaatalee métier de rapproché rapproché ci ci mbër yi dana absorbé dina am lu muy absorbé. waaw parce que euh, xëyu ndaw yi <clears throat> waru waruñu ko bàyyeek ak kese dafa war a nekk mbiru ñëpp tey structure yu bëri ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey donc tey soo jëlee ANAMO bi nga xamante ni man fa laay liggéey ñu ngi formé ay jeunes nga jël ONFP jël feneen ak feneen ñu ngi formé ay jeunes mais yaakaar naa ku ci nekk. ci wàllu woon nekk war nga xool comme ñun nii ci wàllu làmb bi ni ñuy xoolee euh, yan métier nañ mën a jox ndaw yi pour ñu mën a am xëy keneen ku ci nekk aussi secteur bi nga nekk soo defee lu ni mel yaakaar naa ni euh, waxuma la un million mais deux million ba trois million d'emplois mën nañ ko atteindre maanaam daal ñu def ko yëfu ñëpp président jete na jalon yi teg na dispositif yi tey formation bi ñu ngi koy def ak waa 3FPT di structure boo xamante ni état Sénégal moo ko fi teg voilà mais il faut mu am ñoo xamante ni ñooy ñooy porter en fait euh, initiative yi pour jàppale aussi état ci atteinte atteinte euh, objectif boobu nga xamante ni moom le président fixé. Mmh.